di leen baalaaq bu baax di leen baaluwaaq muy kàddu yoo xam ne kàddu yi soññee la rek yu mënta ñàkk fi ni njëkk a commencé rek mbokki taalibe yi ñuy bàyyi xel dayre Serigne Touba bi nga xam ne moo ne ci dëkk bi te ñu bàyyi rek kenn ku nekk toog ba sa bis ñëw wala nga toog ba événement am rek ngay ñëw ndax ku ne xam na ne daayira bi ñuy def guddi alximis guddi alximis rek guddi ajuma rek guddi ajuma rek maanaam tiyaaba yi ci nekk rek jëlal naa ko waaye nag sëñ Tuubaa moom lu ñu koy tudd rek di ko ci laal moom dafa bokkut ak leen guddi ajuma rek noonu dafa kii waxuma laa ñu koy defal sëñ Tuubaa nag loolu lépp xaj na ci kon ñu koy bàyyi xel képp xam ne yaa ngi ci nga yaa ngi ci dëkk bi te amoo benn ngant bu 9h jotatee nga bàyyi li ngay def ñëw am na ñoo xam dañuy jóge ba ku mel ne saaru ayubéyee ba pilaar ak feneen ak ba xose paas di ñëw mais am na ñoo xam fii rek lan dëkk ci onze bi te kenn du leen gis te liggéey bi Masamba moom ma dem moomu ko sëñ Touba lañ koy defal te képp kuy tuddoo sañ Touba war nga boo amul lenn lu benn ngànt bu far bu guddi àjjuma jotee nga bàyyi li ngay def ñëw ndax guddi àjjuma boobu li tax mu am solo mooy. guddi guddi àjjuma boobu li tax mu am solo mooy addiye ji nga xam ne moom la ñuy waaj a yóbbu sëñ Mountakha dimanche moom lañuy ñuy dajale fii social bi. yi ñu dajale du ngeen ko yëg waaye chaque jour ñu dimbali ci ay nit ñoo xam ne soxla nañ ko képp koo xam ne am nga mbokk mu faat wala fii leen koy ñaanale muy maanaam àllarba yi nga xam moom la daan toog toole àllarba yi te ñu nekk fi matun ko kon guddi àjjuma boobu mooy àllarba ji kon ñu bàyyi ci xel te bañ ko woyofal te bañ a di ko man daal ak woyofal laa ko jàpp ndax képp ku jaayantee guddi àjjuma loo doon def nga bàyyi ko war ngaa mën di ñëw ci daayira bi ndax daayira bi lu am solo la bu ci ñëpp jàppee rek lépp luñ bëgg ci dëkk bi ci liggéey Sëñ muy kër Sëñ Tuubaa mën nañ koo am beneen mu ci topp mooy booba léegi ñi ngi laaj addee ji bi ñu ko xaymaa li ñu dajale xaw naa néew ñi ngi laaj booba léegi mbokk mu ne dix mille dix mille peso dix mille peso boo ko xoolee day nekk dix mille franc ba jàpp nañ bi siyaara bi di dimanche bii di war a ñëw la ko la lan ko war a dugal ndax du egg dimanche ndax balaa dimanche war nañ dugal xaalis bi képp ku ci joxeegut koy gisagoo sa sa tur ci list bi ndax bi biñ ko bëgg bëgg dem alxamis bi ñu ko xoolee ñaar fukki nit ñoo ci joxe mais lan la nit mën a xool ñuy la addi jëm sëñ taxaa 10 000 pesos lan la laaj matu sax 10 mil far 10 000 francs léegi nga ne teel mel na ñi koy laaj dañ koy jëm ci seen bopp wala dañ koy jëm fa nangu koo joxe wala tabis bu na yàq loo xam ne ëpp na 10 000 loolu mbokk yi dañ ko xoolaat wala ak oyofal la wala ñàkk ko bàyyi xel kon loolu nañ ci bàyyi xel te képp ko xam denn ngaa nit nga jépp bu ko yëgul nga yëgal ko ndax ba ñu bari duñ liir message léeg-léeg duñ sax diglu waxtaan li leen leen ci événement yi nekk suuf dajaloo duñ ñëwee duñ joxe addi jox dara bu pare ñu dem sëñ Tuubaa nag ni ñu koy waxee saa su ne bitig la lu fa waay jënd doog fa am sëñ Tuubaa yorul luy may li mu yor lépp da koy jaay kon loolu faw ñu bàyyi ci xel te ñu ni fañ jëm sëñ Tuubaa rek lañ ci yaakaar ndax suñ liñ suñu borom sant defuñu ci dara dara dara sama saar gi yépp dañuy nekk suba ba ngoon buñ demee engoro julli gi dem julli dem dem dem dem dem dem seen kër daal di boole julli gi julli ko te loolu rek ku ne xam na ne waxtu jot nga war koo julli suñu borom daa digal nga lépp loo mën a jàpp nga bàyyi ko ndax sëñ Touba bi nga xamee ne suñu borom jël na ko ci ci saayir bi war ko yóbbu ba war koo ba war ko préparé waxtu julli jot danoo bàyyi liy def ñëw julli ñëw doo ko eggale te loolu yaakaar naa moo nekk jataay bu gën a fat kon yooyu yëpp nag buñ ko dee def nañ ci góorgóorlu wa ne sëñ Touba dong lañ yaakaar ci ci baaxam ak màggaayam liggéeyam ci lañ yaakaar yërmande suñu borom ëllëg kon bu buñ koy wooteel bis nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a a baax kon nag fii feeg yaakaar naa ne àjjuma wala feeg àllarba wala alxamis képp koo xam ne joxewoo joxewoo dix mille yaakaar naa déwén nga ko joxaat ndax àddee ji moom dañ koy dugal kon ñu bàyyi ci xel bu baax bu baax a baax waaw bi incha allah bi toom suñ mbokk suñ suñ mbokk jigéen yi sax nga xam ne kii daayira soxna jaara bi ñoom soxna may ñi ko àndal tey jii jaayante nañ ba indi cent mille peeso ñoom def ko ci àddee ji kon ñu ngi leen di sant di ñaan yàlla ngeen ci dajeeg ngërëmu sëñ Tuubaa mi tax ngeen koy def beneen bu ci topp mooy yoonu murit wi ñu nekk ñun ñëpp ñoo xam ni nga xam ne noonu lay demee maanaam amul noppalu amul liggéey ndax liggéey bu jàll beneen day ñëw ndax ku ne xam ne ne xidmatul xadim bii nga xam ne mooy jumaa ji nga xam ne ñaari yoon lañuy laaj ci at bi muy bu koor gi jubee ak muy bu màggal gi jubee ak ku ne xam ne sëñ jubaa ni mu fenk jumaa ji ak ñoom xéewal yi ñuy def ci màggal gi di ko def ci koor gi ku ne xam ne ne Argentine koor gi paas seen addiye génnul koor gi passé ku ne xam na ne Argentine joxewuñ ci jumaa ja te ñu ngi waajal màggal gi loolu tamit ñu bàyyi ci xel balaa màggal gi xam naa suñ taala dana wax bis bu koy laaj ndax fa njëm waaw fa njëm dara du fa doy te sëñ Tuubaa loo ko jox jaar la ci moom mu jox suñu borom moo gën fopp loo loo dugal feneen kon ñu kon ñu bàyyi xel ci loolu buñ ci liggéey kër sëñ Tuubaa gaa ngi fii ñu ngi ci këyit yi ak yeneen ak yeneen xam naa buñ ko songaatee moom ay caaxaan defaru ko faaw nit ñi jaayante sasu màggal gi am na ñoo xam ne euh, ban ko soññee ba léegi ban ko soññee ba léegi daanaka mën nga ne boo demee caabal ñaar ni ñett ni ñu jox ko te ne xam ne màggal gi moom faw day am te nag xam nañ ne màggal gi yéen ñëpp xam ngeen li ci nekk ak lim ñu defal waaye nag léeg-léeg day xaw a yéex kon bu nu jógee tey ci ci màggalu Daaru Xudoos gi nanu nanu jàpp màggal gi xam ne sas wi 30 mille la woon ak xar mi kon nañ ci bàyyi xel ñu commencé jaayante ci kenn ku nekk fas yéene sa addiyee njëkk a dugg ci bernde yi ndax boo nekkee ba mu sës tamit nga bëgg dugal Sénégal bëgg a dugal fi day kii kon da ngay affaire da nga koy organiser teel a joxe ci màggal gi loolu loolu ñu ñu bàyyi ci xel la 5 tamit yaakaar naa ne suba tey jii la la 5 la 5 5000 yi nga xam ne moom lañ sës mbokku taalibe bu ne ci dëkk bi ñu war koy dugal ci kër Sëriñ Tuubaa yi di ko dajale ba këyit yéeg li ñuy lijjanteeg architecte yeeg yépp mat nag ñu doog a def benn sa song kër Sëriñ Tuubaa gi ndax kër gi bañ ko jëlee ba léegi ñu ngi ko bàyyi ni faaw ñu defar ko kon ñu xam ne ne liggéey sañ Tuubaa du lu yomb képp ku jàppaan ne liggéey Sëriñ Tuubaa lu yomb la wala ay waxi kese la wala da nga ciy doxe sa bakkan wala da kiy ciy toog nu la neexee nanga nga naax nga sa bopp ndax ku tedd ki koy jaay mayewu ko te amalu ko yomb loolu moom ñun ñi nga xam ne si yàlla danoo dogal ñu nuy tudd tudd te mutuñu ko dine ci toog ci kanam ak ñu jiite ñëpp yam ci liggéey bi waaye duñ ci yërëm kenn ay landinoor rek lan te bu ñuy fekk ñu soññee day fekk ñun suñu àddee dem ba pare kenn fas yéenum kenn mën ci waaye duñ ci nës nësal duñ ci maslaa duñ ci yërëme dees na soññee nag buñ su xasee soññee nag ku ku joxee baax na ku joxut baax na moom lu fi nekk rek liggéey bi am na soññee mais amul xaare kon na ju bàyyi xel maam Thierno mi nekk yor micro bi soññee boo ko xoolee ci xeebaayam wala ci solinam wala ci ay jëfinam doo liggéeyal sëñ tuubaa képp ko yor micro soññee wala mu toog fii da ngay xool jëmmi sëñ Touba dongo tax muy wax loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax kon loolu ñu bàyyi waa ci xel te loolu lépp li koy mën a ñogal nag mooy di ñëw ci guddi àjjuma gi di dégg tënk yi nekk ci rajo bi di déglu message yi te xam na rajo bii ñu ubbi nii ku fi nekk ko nga ciy fexee dugg kenn du ci dugal message bu ñàkk fayda wala message foo wala daaxal message bu ñu ci dugal rek am na lu ko tax a ju ñu koy bàyyi xel boo déglul message tamit yaa ngi ci leneen rek kon nag ñu gën a góorgóorlu gën a xam liñ am mooy leen yàlla dogal na ñu ñëpp ñoo bokk Sénégal ñoo bokk fii ñoo bokk seen dañuy wuute ay xalaat waaye sëñ Touba moom lu coow li bari bari bari man kii am na fu kenn nit kii dana am fu farkee am farkee am nu mu xalaate kenn nu mu xalaate waaye lu coow li ma bari bari bari bari sëñ Touba moom nañ ko teg nale bañ koo jaxaseeg dala bañ koo booleek dara te bul nangu masla wala bokk ak nit ci affaire àddina yi ba tax ngay nangu muy wax sëñ Touba ngay nangu nga koy masla képp ko xam ne pas-pas des na dara sa xel bul nangu kenn di jël dara di ko teg ci di ko teg di ko teg sëñ Touba wala mu koy teg sëñ Muntaxa wala dara nga koy nangu ndax affaire àdduna yi man maam Thierno du ko nangu man fii xaaj bi xëy na ñu ci bari xam nañ fu ma far mais du ma nangu benn benn benn samba bi wala kenn ku jóge fenn di attaqué sëñ Touba wala muy wax sëñ Muntaxa dara may ngay maslaa moom wala ma cay neex ak moom ndax affaire àdduna yi du ko nangu ndax tey bu nu mënee nekk bay existé bay ñëw fi sëñ Touba moo tax kenn ku nekk am nga sa position am nga foo far jàpp nga ne lii moo war a defar Sénégal kooku na nga ci dem ba jeex tàkk waaye bul nangu kenn di bët ndax dafa bari ay caaxaankat yoo xam danoo yàgg contre sañ Tuubaa yàgg a yoon yi di ci profité di wax lu ne sëñ tax te ñun loolu duñ ko nangu duñ ko may kenn murit bu ñàkk fayda nag ba nekk fenn di ko nangu kooku sa affaire la kon nag ñi ngi jégalu lu baax ci kàddu